Euh, bonsoir, très chers internautes de Guédian Info TV. Aujourd'hui, nous sommes avec euh, le grand champion double S numéro 2, un leader qui fut formé et forgé à l'école de lutte Balagay. Mesdames et messieurs, il n'est pas le leader le plus célèbre ni le plus technique de l'arène, mais sa maturité, sa personnalité, mais aussi son sentiment de politesse et de tact lui ont valu un, respect et une considération manifeste. Messieurs, dames, permettez-moi, comme à l'accoutumée, d'emprunter la langue de Kotu Barma. Bok internautes, nous champion Mag double S numéro 2. mu doon daanaan boo xamante ñi ngi ko tàggatee formé ko fi nga xamante ne mooy école lutte Balla Gaye ba mu fi mu toll comme ni ma ko waxee sànq ci nasaraan rek nekkul mbër bi fi gën a siiw nekkul itam mbër bi dàq bëree ci làmb ji waaye fulaam ak yaram ak tegginam waaye itam maturité am ak personnalité am tax na képp kuy bëggee làmb rek jox nga ko cër daal di koy wekk nee naa la boo daane ki nga xamante ni mooy fëga la daan ki nga xamante ni mooy garga mboose daan aussi ki nga la xel ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ñu doog a tàbbi bi auzu billaahi mina seytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim ginnaaw bu nu santee yàlla julli si yonent bi sant suñuy waajur di sant waa Sénégal gi yëpp rawatina waa Géejawaay rawatina waa école bi nii ñu nekk nii di jël nuyoo bi tamit di ko jiital fii teg ko si loxo mbës ak loxo abu bébé Balla ak Lamine nga xam ne ñoom ñooy magu école bi instant yi nekk fii diriger booy di leen jàppale ba bëccëg di leen nuyu di nuyu waala euh, père Balla di ko jox wàcc waayam di ko ñaanal yàlla may ko tan bàyyi ko may ko gudd fan ak wér ba ci kanam a kanam a kanam ba lépp lu mu namm si école bi tamit yàlla defaat ko si barke Seydina Mohamed di am contentement tamit tey dalal bu ñu leen dalal fii si école bi fii toog fii si suufu maam Limaamu Laay bi fii di néew di ñaan yàlla lépp lu ñu ñaan si école bi ah, di ko yàlla wàcce fi Sénégal lépp luy jàmm yàlla wàcc ko fii nii lépp luñ fa ñaan si li jàmm ak salaam ak luy jëmale réew mi kanam yàlla ko yàlla def si barke Seydina Mohamed champion ah, kan moy double S numéro 2 wa ki benn mbeur la won benn mbeur bu ni wax double S numéro 2 mu judd walé tour bi magal ak mom dem ba surtout mbeur bi juk su mom muy dem di beure ci mbapar yi dem si géej gi di beure ci tefes gi diko top diko top ba tay ñew fekk école bi am fi mu ñew ci école bi ñew fi di fi beure teg ñu jël ma teg ma si loxo Père Balla mu ñëw fii di bëri si waaw. turu Double Less bi fan la jógee dafa doon loo xam te ni yaa ko tànnal sa bopp wala dañ la ko tuddee. non waaw lu bëri dañ may poser question boobu lu bëri mais pour mu leer trop man damaa judd ñu tuddee ma ko Double Less muy suma turandoo di sama papa di sama lépp tamit maa koy nuyuwaale bu baax a baax di ko ñaan yàlla may ko wér-gu-yaram moom it Balla baal ko fi ba ci kanam kanam kanam kanam ndax sama carrière mbër joué na ci lu bëree bare bare bëri dépp boo mu nekkee xale tamit bàyyiwuma benn yoon heure bu mosaan dem championnat wala fu mu mën su mënta dem bu ñëwee sama séritie da koy indaale bokk naa fii ci xale yi jugee nekk géejawaay di njëkk a sol ay naayik ak yeneen façon yi nga xam ne xeetu bit ay xeetu colin yi nga xam ne biti réew la daan jóge mu ko daan indil damaa judd sama papa tuddee ma ko nekkul lu ma xëccu wala lenn mu fekk sama papa ak mom ñu doon and and bu rafet torop mu jëddu mu tuddee mako euh madame saxu bi gañu fan yi yalla na ko yàlla yërëm ko aljana di ko wa senegal Sénégal gi yëpp di ko wa waa kër gi yëpp tamit momi dafa judd ñu tuddee ko sama bàjjan ñun ñaar presque ay cheikh lañ nonu quoi non la démé won mu lol mo waron and bu rafet bobu quoi mom dafa judd nek jigen ñu ko sama bàjjan mo judd nek góor ñu tuddee ma papa les kon ñu li mëna japp rek moy doona tour bo xamanteni nekul dañ ko tuddé sa bopp par hasard donc mën nañ ne daal lu bari na lu bari lo xamanteni mo la xoss ci biir sa ndo la direct nga wëlbatiku dal koy tuddé sa bopp ci lamb ji euh, bu lol weesoo aussi ñu yag dégg sa jaar jaar mbapat donc ciow lu bari ci lol sa jaar jaar mbapat nan la démé wa man mën na né sax lu mo bëre mbapat bëréew ma arène mbapat ñetti mbapat yi fi gënon mak fi moy mbapat ibamar ak mbapatu père ibrahim ak mbapatu mbey gueye ñett yooyu yëpp bu ne final naa ko jël naa ko kon wax yeneen yi waxuma ko quoi ay drapeau yeeg yeneen affaire yooyu noonu yooyu moom dama si jël jël jël mar de misi mbapat moom bëri na champion fi fiy dégg yëpp daan naa leen si mbapat yi yàlla nag moom mooy am nu muy defee ay mbiram ñun nangu ko nag di ko accepter tamit xam ne ñun ñii ay jaamu yàlla lañ ay ndong yu xeeboo xeebu lañ xam nga xam ne fii lii lañ mënoon ah, lépp luñ mën luñ mënul def nañ ko fii lañ yàlla yemale noonu la quoi mais def nañ lu nga xam ni man 2006 2005 2006 maay meilleur léger fii Sénégal ndax mbapat boobu noonu am na benn mbapat bi nga xam ne dañ ko doon organiser fële nu mu tudd mbapatu Père Birahim Ndiaye la woon day am nefetaanu mbapat lay doon mais région de Dakar lañ wax Guédiawaye bokk si woon léegi mën a Balla gay 2 dañuy dem bindu ji waa école bi daal dañuy dem bindu ji fële nu mu tudd si mbapatu Père bañ demee yàlla def ñun ñaar ñoo tas final léger ñoo fa àndoon duñ bëre. mbappat yu amoon fi arrêt Diagne Mbaye ñoo tase woon finaal non boobu mbappat bi dafa teela dafa yàqu quoi mais ñoo ngi woon si quart de finale ñu dem mbappatu fii buun ñun ñaar ñoo fa finalu mais bañ demee fee si euh, foofu noonu mbappatu Birame Ndiaye bi ku génn foofu yaa war a àggale ji Dakar dañuy waxool championnat kenn ku ne gox bi nga génn ñu boolewaat leen Dakar man ma gé moom ñu nekkoon foofu ma jox yëkkati woon loxoom lamb ji am jour bu ñu war a defaatee final bi. yalla def momom mu am combat fi stade Amadou bari war fi bari dam kanji jour bobu su guddi gi loon nonguloo gañu jour bobu je me rappelle très bien ko mu ñew fi bari si man ma dem ji bedakar mbapat bi Dakar dem jële drapeau bi non non la demee bari mbapatu mbey gay ak ibrahim Ndiaye tam ñaari at la tek diko finalu ñaari at la tegale ñaari yëpp dama koy finalu mais nak def preuve mbapat bu baax dal su ma ko mën a expliquer xam nga jarul di lim naan diw laa fa bëreel daan naa diw daan naa diw yooyu dafay guddal quoi mais euh, ndax mbapat boo bëree ñetti fan daan nga bay bëgg a dee ñetti fan lañ ko daan bëre plus de ay cent et quelques mbër nga bëre ko trois jours ngeen koy bëri da ngay bëre bëre bëre ba mënatoo nga ñëw mais jamono yooyu ak léegi presque chance bu ñu amoon mooy mbapat du yàqu du tas chance boobu lañ amoon macha allah. dëgg la comme ni nga ko waxee mënoo fay nekk di lim mais tamit tey waxtaan la te tey nag dafa jot nga leeral ci li nga xamante ni mooy bëtu internet yu daal di xam réellement kan mooy Double Less numéro 2. tudd nga ay champion ay ndaanaan yoo xam te jot nga bëreeg ñoom Mbapat loolu léegi foog nga leeral ñu kan ak kan nga joteeg dajeeg ci Mbapat yooyu. <laughs> Mbapat yooyu <laughs> mun naa si wax Modou Lo hmm, mun naa wax Baye Pël mun naa wax ay ñoom. waa lamsaar yi ndax dañ daan dem foofu di bëre ji mën naa wax waa waa parcelles yi daal parcelle dama daan dugg foofu noonu daan naa fa presque Rock Énergie ñu fa daanul bëriwul xanaa mag ñi fa bañul woon bëre waaw super jamono lañ laa fa mosul daan te nangu mosuñu woon bëre moom Elton la fa jotoon bëre suñun super jamono sel lan moo tax mu doon bañ ngeen bëre. no bu dee tournoi la duñ duñ amuñu woon sens di mbëkkante di tase mais Modou loo tase nañ ñetti yoon final tase nañ ko Birame Ndiaye. tase nañ ko bu Mbaye Guèye tase nañ ko fii suñu koñ tamit ñetti yoon laa wax am na benn bi nga xam ne nag mbappatu usa la boobu tamit du woon final dëkkante woon mu ñëw dëkk ma foofu tamit dama ko fa daan tamit mais bu Birame Ndiaye bu bu Birame Ndiaye première final peut final bi foofu noonu boobu moom moom moom moo daan foofu noonu maa ko daan fii suñu koñ bële fële am na bi nga xam ne bëre nañ ko mbappatu Mbaye Guèye boobu ñoo fa tase woon final tamit waaw boobu mu ñëw ba daan ko gars yi nee nañ ko bëriwaat ñu bëriwaat mu daan ma ba ñëwee Petit Mbaye moo fa nekkoon mu woo ma première combat bi yow ko daan mais comme yar bi nga wone ba ñu waat nga ñëw bëriwaat parce que man boobu loolu laa gëmoon man dama gëm ne su bëree même bu ma la boo ñëwee dama lay daan boo bañee bu ñu la mën ñëwaatal mais moom jour boobu noonu après si kii bu mujj bi moom moo daan mais lépp lu ñu fa tegoon presque si digg bi lay am parce que man jox nañ ma jox ko ku nekk jour boobu noonu ku bobu mang koy fatali ko bu baax ñom tafaage ak ñom ñep suba bañ xeye dem ci rajo sax wa rajo yeeg yëpp dañ ñew ne ah demb kat ni la demewon mais les deux mom mo daan mais lamb ja neexon moo tax ñu waat leen ñu bëriwaat ndax dañu bëri woon du ma faat duma ko fàtte bu baax dañ bëre won mu wër ma ndomb parce ñu ñaar sax combat dama koy wër ndomb wala mu wër ma ndomb ñu bëre mu wër ma ndomb ceinture ma mané ma croisé ci ñaari ba ñaar ñaari ñaari ñaari loxoy fi ni nii ko ni bu mu croisé ko bayiko muy buddi xam bu man mako man mako sut ma dugalaat sama tànk fii nii si biir fii genre caxabalu biir weeru ko mu dijju mu dijjoo gars yi jóg tafaagay non lii du bëri xale nañ bëriwaat jour ba coow li torop ñu bëriwaat yàlla def mu daan ma noonu la demee woon si mbapat yi mais bëri na si mbër yi xam ne tey jii nii xaw du ma fàttalikuwuma mais bu fekkoon <laughs> xaw ma nu ma ko mën a daal mais daan naa si mbapat yi ba ba sonn billaay loolu moom c'est sûr mu doon lu am solo parce que dañ faral di dégg ñu ne sa diggante ak Modou Lo métti woon na trop. daan nga ko daan na la. kenn mënu ko woon expliquer kenn mënu ko woon expliquer am na mbapat bu mu bu ñu mujjee def boobu ba ñu ñëwee père Birame dafa ñëw jàpp sama loxo jàpp loxoom indi ñu ba si géew bi nañ mbapat bi boobu premier jour bi la te ñoo ngi ko jours mu ne mbappat bi nii ñaar ñi ñoo koy finaalu si les yi man ak Modou Lo mu jël yoon bi mu jël yoon bi yàlla def ñu koy tourné di ko tourné di ko tourné bañ dem bañ des ñun ñett nit kese. ñu tirage ko ñun ñaar ñu tase jour boobu tamit noonu la demee boobu naqari naa bëreel am naa doole bu mu doon bëre yu mu doon bëre tamit nekkul woon bëre sax lu xale di bëre donte boobu xale laa woon mais macha allah quoi fii muy Thiès Saly dama doon wër mbapat yi Koupantou Waalo Richard Toll Dagana fu mbapat daan dem per bal daf ñu daan yóbbu mu daan jël di yóbbu. ñuy dem si mbapat yi amul mbapat bu ñu bëree jiwul amul amul lay wax ne mbapat bu ñu bëree jiwul mbër yu fii nekk fii nii yëpp mun naa ne mbër yu si bëri xam ne sama génération leen daan naa leen si mbapat yi ñàkkul tamit am na ñu ma si daan tamit waaw. waaw mbër foofu laay taxaw tuuti sax que wax nga ko léegi père yàgg na leen yóbbu ay mbapat ngeen yi bëree bu leen mosoon doon yóbbu nan la leen doon yóbbee ak yàgg kan ak doon boole yóbbu leen ngeen bëree ji mbapat. boobu école bi bëri woon bëri woon trop début bi mais bu ñu doon dem mbapat man ak Balla ñoo ci doon nekk di si di ëpp lu ñuy bind du bëre mais ñun ñooy ànd nag ñun ñëpp dañuy jël boobu ay xale ñoo si ëppoon ñoom yusu nii ñoo fi nekkoon ñoom Gakou 2 ak ñoom Bés ñoom Bébé Balla yi boobu ñoom ñëpp ñoo ngi nekk ay xale quoi mais boobu ñun ñoo si gën tane woon dëgër mais boobu ñun suñ doole tolloon suñ yaram ñun tolloon suñ doole moo ko ëpp ndeysaan maa ngi fàttaliku mbappatu masque mbargaan mbappatu parcelles yooyu yëpp bu mbapat bi jeexee perbal dafa daan ànd ñun dox doxaat ñibbisi ba fii géej waaye bu ñuy ñibbisi duñu am luñ indi dañuy dox boobu noonu la daan demee quoi boobu moyen amul dara amul boobu métti woon na trop tamit mm, ndax boobu gisuñu woon kenn mu métti trop amuñu yenn moyens yi nekkul dangay bëgg a jug dem rek dem nekkul loo bëgg def def ko léegi nit ñi di xaar pour ñu def ay preuve pour ñuy soog a ñu mën ñu jàppale mu difficile woon trop trop trop trop trop mais loolu tamit moo joxoon courage bi nga xam ni. ñu mënon def luñ doon def ndax bobu gëm nañ ko te xam nañ ni carrément ñi fi nekk di def mënuñu te way war na juk ci kaw te ñun ñaar ñoo fi nekkoon foog ñu def ko mu juk après par la suite Elton mu nekk momit ñoo liggéey bi ba yàlla def tey école bu taxaw bañ koy mën a tudd waaw mais le fait que comme ni nga ko waxee léegi rek père nekk mag yàgg ànd ak yéen di daj ay coono des fois sax da ngeen di dox yoon bi daal di ñëw mu yàgg sonn di ànd ak yéen yàgg bàlla ban yëg ngeen ci doon am waa am na si jour yi nga xam ne sax bu guddi jotee après boo leen di dox di ñibbi si boo ko xoolee rek moo lay dese ndax da ngay sa papa mu tëdd si kaw lalam kenn ku ne nga bàyyi sa papa mu tëdd si lalam mom nga yëkkati ko ànd ak moom heure boobu ngay dox ay ramas lépp doon am parce que am jour yi am dañ ñëw ba kaas ba rek auto police kanam kon après lol noonu mënuñu ko fay amuñu fayam luñ mën mooy kenn ku nekk li nga am mu néew mu bari nga ko def di ko ñaanal yàlla tam yàlla bàyyi ko fi ba si kanam xool lépp luñ mën si lu baax man de lépp lu ma xam li nga xam ne lu baax la mën naa ko si moom yàlla xam na ne du ma si xaar ma sàmm xaaruma si ma dem waaw di ko ñaanal yàlla may ko wér bu baax a baax may ko gudd fan bàyyi ko fi ba lépp lu mun na maat si école bi yàlla defaat ko fi si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kon mun nañ jàpp ne daal doon na nit koo xamante ni seen kilifa la te li muy représenté ci yéen bari na. mais kilifa weesuwul loolu ba ñu ñëw ñun mënuñu dara mu ñëw neen da nga bàyyi seen métier. xam nga da di bàyyi seen métier par force ñu bàyyi ko kon ku ku nekkul sa kilifa mënu la def loolu loolu ne li ngeen di am ëllëg mooy ëpp loolu bàyyi leen métier bi par force ay ay mbër ngeen da ngeen di nekk mbër. ñu bàyyi ko ma mais bi muy wax loolu est-ce que yéen yéen gëmoon ngeen li mu doon wax. non au fond dañ ko doon gëm ndax boobu euh, ñun dafa am ngëm-ngëm bu ñu indaale woon dafa am ngëm-ngëm lu taxoon ñu dugg ci làmb parce que da nga dañ duggoon ci làmb pour rien mais ñu won pour amourul gis gaay di bëre rek ñuy bëre non non dafa am luñu visé won malgré aguma fofu comme fu au sommet fu gaay di wax mais liggéey na ci lamb ba xamné fu ñuy tuddé lamb yi dinañ ma ci tuddu ndax bokku na mu bu ñuy limbeur yi fi ëpp victoire bokku na ci tay dëng fi fiy ay champion amni 10 victoire 11 12 13 man raw na lolu yag na donte tok na ay at bëréew suma su doon bëre ba légui kan waxatu ko té ba lamb ji di dëgër torop di dëgër ñun man bëri naa lamb trois jours lamb deux jours damay toog fii combat diw ak diw yàqu na lees loo si indi leen avance bi non day yéex a nii man bëri naa ba pare sax sama avance soogay mat ba muy bëre gargam boose bëri naa ba pare laa lay wax nii boobu do xooluñu woon loolu mais dafa am luñ fuñ vision am fuñ tegoon suñ bët per Balla tamit ñëw gën a loo ñu loolu am lu mu branché waat si ñun lu mu yokkaat si ñun am lu mu dindi si ñun xamul mu la ndax ay nit boo leen yoree tamit ay xale boo leen yoree dinañ indaale ay jikko yu bari bu ñu ñëwee nga xool loo mën a dindi si ñoom nga dind ko loo mën a yokk si ñoom nga yokk ko loolu la Père Balla def si ñun. comme mun nañ mun nañ jàpp rek comme li wax sànq ci nasaraan doon na ko am te tey moo leen former tàggat leen ba ngeen toll fi ngeen toll. non dafa def si ñun lu bari man dama ne moom dafa ubbi entreprise école bi entreprise la bàyyi ay doomu aadama ñëw di si jariñu moom fu ñu toll loolu la def li si di jariñu moom jariñoo ko si. waaw mais nag fayu yàlla moo ëpp bu nit yàlla na ko yàlla fay ba pare ñun du tere lépp luñ mën dinañ ko si def loolu moo am solo quoi waaw. mbër bu loolu weesoo ñu di wax ci keneen koo xamante ni mun naan tamit sa nit la am na lu muy représenté ci yow muy Mame Less nekk kër bu euh, école de lutte euh, écrit parcelle mbooloo bu bu parcelle euh, mu daan ñu xamal ni yàgg na siiq ak yow lu bëri ngeen am relation am te relation bu approfondi la tey lan ngay wax seen diggante ak moom. man ak Less amuñu diggante mag la. sama mag la suma xarit la sama lépp la dama daan tëdd ba guddi yee ko mu dawal otoom ñu daw dugg ba si àll bi ma ne ko lii ak lii moom a jaaxal fii si kii bi mu ne ma nii ak nii nga koy defee kon kooku da dafa am lu bari da ngeen dépassé ay coach ak wala leneen loolu parce que ñun boobu lépp loo xamul ak doo rëy pour laaj ko te boobu moom nekk na nit ki nga xam ne ma nekk xale di màgg si wetam di ko gis gis nu muy entraîné gis estilam ma xam ne kii su ko toppee naa am dara. muy Mamles muy Pape Konaté ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bëri na man géejawaay dama naa ñëpp mooy yéene ko man loolu laay wax képp ku fi nekk dara xam dara rek sa dara boobu cof naa si jël si dara ba période bu toll nii tey jii nii lu ma am si xam làmb sax moo ëpp fuuf lu ma yoroon démb ma donte donte gëj naa am combat naa def lépp mais lépp lu lu nekk lu nekk si bopp bi guddi yi nii moo ëpp fuuf lu nekkoon ay jamono bu may bëri fuuf laa lay wax nii bu fekkoon benn laa yoroon guddi yi naa fukk wala ñaar fukk noonu la demee lees yàlla moom moo ñu boole may fréquenté këram di fa dem bokk tur bi tamit bu ñëwee bu mu ne ma turandoo mu ne ko turandoo xam nga day xam nga sama xol bi day féex day neex trop quoi. waa benn complicité bu ñu am nekk suñu diggante des fois mu taal otom dawal ba ba sama wetu kër woo ma ne ma foo nekk ma ne ko maa ni mu ne ma génnal ma génn mu dawal jëm dem géej. kenn du programme dara. foofu laay taxaw tuuti sax parce que yàgg nañ dégg ni daaw nga amul ak moom li nga xam te ne mooy travail complémentaire c'est-à-dire nga entraîné ba pare nga dajeeg moom dem géej ngeen yokk liggéey boobu dañ ñu doon wax ni ku bëgg am lu kenn dul am da def lu kenn dul def boo liggéeyee fii ba pare da ngay dem yokkaat leneen li nga xam ne mooy li nga xam ne yow manqué nga te ndax parce que nul nul n'est parfait kenn matul. kenn mënul matale lépp mais di nga xam li nga xam ne yow manqué nga ko nga dem di ko renforcer waat feneen. lol moo waraloon lol noonu mais moom mu nekk nit ku baax am générosité am xol bu yaatu parce que amul xol bu yaatu munoo loolu ndax boobu fekk na ko mu nekk si écurie man tax am écurie ñu nit ñi xawoon ko mere ñëw na fii tamit may war a bërëg mbërëm nit ñi bëgg ko téye mën ko mukk kenn du ko téye bàyyi leen ko fii yàlla xam na ko te boobu bu yëkkati woon dara ne ma demal sangu juma dem sangu ji ba yàlla def lu muy def. mun jàpp ni sa nit la te am na benn kóolute ak benn complicité bu nekk seen diggante. non si loolu loolu moom moo am <laughs> moom kay dañ dépassé foofu sax tey lu ma leerul dama koy woo ne ko euh, turandoo lii nan laa ak naka la mu ne ma nii la ak nii la ak nii lañ koy defee dem ko wax ma moom sax mais seen waa kër dañ ma bëgg comme rakkam ay asmar ay ñoom ñoom ñoom feeraay seen waa kër yëpp damay dem seen kër every day ba nii nii nii dama fay dem. dama fay dem émission bu muy def daf may daf may woo ne ma dinaa def émission nangam làmb bu jeex dina mu woo ne ma combat bi nii ak nii booy bu ko defoon nii lay demee ma ne des fois ma woo ko ne ko turandoo waaye nii ni mu demee combat bii nii mu ne ma noo booy bi ni mu nii la nii la ak nii la lii moo si baax lii moo si baaxul noonu noonu la demee quoi ñun ñaar ba pare même si côté àdduna dañ siy wax bu baax baax a baax a baax su côté àdduna daf ma si conseil di ma teg si raay di ma wax affaire yu bare bare macha allah. na ko yàlla jàppale quoi. am na solo mbër bu loolu weesoo comme ni nga ko waxee léegi rek bañ nga sawar daal di wane sa bopp ci mbapat euh, bi nga jógee foofu nga daal dugg ci li nga xamante ne mooy arène bi lutte lutte avec frappe ban année nga commencé bëree lutte avec frappe. lutte avec frappe maa ngi ko commencé euh, en 2004 euh, fin 2004 décembre le 27 décembre yaakaar naa 2004 laa njëkk a bëri sama premier combat benn mbër bu ñuy wax Elton kooku moo tuddoon Elton bu njëkk ba. Nek écrit père jaw bi moo nekkoon sam notaire comprendre nga yàlla def xaw ma sax ku may bëreel billaahi ba may dem di ngemb ji ñun dama dama dama doon dox dama ne sama mag bi ñoo ànd dem dox di dem kër këlu lañ daan ngemb ma romb ko fii muy ngemb ma ne kii da ndeysaan ñoo bokk fu ñuy bëree tey yàlla na ko yàlla may ndam waay yàlla te xam mooy sax moom laay bëreel ñu bokk benn koñ bi man. bu nga demee ba ci làmb ji ngeen toog taxaw war a bëri loolu la surprendre quoi. mais boobu ñun semence fu lañ doon demee tamit quoi dunduñu woon loolu moom jaaxuluma quoi ndax mooy loolu noonu mais yeneen kanam yu mu àndaloon ñoon ñoom xawoon nañ nekk sama problème tuuti ndax ñoom laa doon fréquenté gu dégg bëccëg période boobu si ñoom laa doon toog mu nekk seen mbër man waxoon naa leen ku may bëreel ak yooyu yëpp xam nga mu nekk beneen beneen beneen histoire quoi mais yàlla defal ma si tamit kooku premier combat ma dem yàlla def ma dóor ko mu daanu Mm, après mom moy lolou quoi yalla def lu gën ci man ma ma dem quoi waaw non la demé bamu ñëwé xol ko tok kan lay bërel sama mag bi mu ne ma kan ngay bërel mu ne kan lay bërel mu ne ma xaar mu ñëw dem dellu su mu ne ma kee and ak ñi ñoom jaw ñëlé mom ngay bërel mu ne ko non lolou mënu nekk ndax man ak ñom jaw chaque jour ñoy nekk bo suñu jógee entraînement dañuy jaar fi ci marché bobu daawu sék mo fi nekkoon su mu ñëwé fofu ñom daawu sék ñom jaw ñom ñëpp ñoo doon nekk man leen man damay bërel am ko moy bërel mais diwlo tuddu ñu ne ma ñun suñu mbar dali siy bëre mais xamuñu kan lay bëreel mais yàlla may na ma si ndam daal amul benn coow teewul tamit jàppaluma leen si dara parce que xam naa ne tamit jour boobu combat bi ñoom mënuñu ma ko woon may man mënuma leen ko may mbeur mi waron na beure man waron na beure te bobu toll na mo am war am combat par force dama koy am ñoom it seen am combat dañ koy am jeexna jeexna combat bi jeexna après ñu saafoon te ñoo andat bok suñu géej way dem kenn ku nekk nekkat ci jam ba tay yalla def léegi yëpp nekkat ben sax fof amna solo nga dugg ci li nga xamanteni ne muy lutte avec frappe muy beure arène donc sa palmarès nan la tëddee. beure na ay plus de 20 combats amna plus de 16 victoires. am naa plus de seize victoire sama mun naa limal pour ñu mën naa bañ lim pour ñu bañ a rey temps yenn temps yi quoi mais bu dee xaj na si mun naa limal mbër yu ma daan yëpp quoi ñuy wañ wàññi benn par benn. jarul lim parce que sànq wax naa ko ci suma introduction daan nga ku ci mel ni Tidiane Faye Garga Mbossé ak ki nga xamante ne mooy Fëgga la. Cheikhou Diène Aliou Mané Dolph Birisi Ly Bukki. gëm euh, bukki ak kii nu mu tudd waaw wax nañ Tidiane Faye ak Dolf Fëgala bukki euh, ak Elton boobu mu doon bëreel Laadum Zazu Ndiaye bu Faas Koli ay Dior numéro 2 ay Mor Fadam numéro ay baay Gora bëri naa daal bëri naa bu baax a baax a baax waaw bëri <laughs> naa waaw am naa si ay defat tamit comme ku mel na ay Modou Lo Modou Lo na Papa Sow dan na ma Boy dan na ma ak malen Ndiaye. aw ah, loolu am solo mais mbër mu mu am benn moment sa carrière mel da nga nekkoon ci benn lancé mun naa jamono ji ngay bëreeg Boy 2 nga nekkoon ci ben lancé boo xam te ne mun naa 2 kenn mënu ko nga combat nga koy est-ce que nga revenir ci sa ak combat la bu mu nekk bu compliqué tuuti am ay affaire yu bi yu bare yu si nekkoon mhm, yu si bare tey mun naa bañ a wax nga posé question booy yi dama jóge Espagne ñëw fii mun mënutuma entraîner laajal booy yi su may ñëw damay dawal sama bopp oto sama su may ñibbi dañ may dawalal du ma mën a àggale entraînement yi mukk donc heure bu mu duggee si école damay ànd ak ndigg bi nga xam ne du ma mën a sigg ñoom ñoo ngi ne laaj leen ak sama ndigg ak sama lan moo doon metti ah, ah? nee na ak zone yi te gaañoo ma si daw ma dara xam nga zone buy métti benn tànk fe dafay war a métti rek mais zone buy daw ba si moulin yi di daw ba si kiwesil du zone noonu la demee woon. mun naa jàpp ne loolu côté mystique mystiquement dan dan dan la dan la eggoon fu sori. non mun naa mystique mais du ma ko jiiñ moom quoi làmb la rek quoi parce que da doon ut si mooy ut si ñëw naa bëri na daan na xam nga même nu ma daanee sax tey jii su ma neexoon ma taxaw comme nu ñëpp ñëpp gis nañ nu action bi demee. si ginnaaw saako yi la affaire yooyu noonu mais yooyu problème parce que nit boo taxawee ba si àgg àgg suuf daanu nga jeex na noonu la demee parce que daan naa fa ay parce que moom nu ma daane ma nangu ko noonu ko sos daane mu bañ ko bañ dóorante fa ay yat ak yu kenn xamul mais sport sport la rek da ngay daan ñii ñi daan la làmb ji gisu góof ku fi bëre ba bàyyi daanuwul waaw kii day daan kii kii daan kii kii daan kii mais ñu bañ nekk ay mauvais perdant je suis pas un mauvais du ma perte ba pare taxawaat ñàkk ba pare ñànki noonu la demee ba mu ñu xëy dem si télé yi wax mu leen daanu naa daanu naa damay dem uti jiwaat yàlla may naa na ma fi ñaari combat muy kolifay kolifay moo gënoon dis ba euh, kii fop ñoom moo gënoon dis booy ñaa fop jamono yooyu noonu mais taxaw maag moom fam ko jàpp vite fait daan ko ñoom garga ñoom ñëpp nu mu bëreeg bar garga ak nu mu bëreeg man ba tey bokkul nu mu bëreeg ñoom yeneen ñoom saa sa xoolal suñ combat suñ combat lu si laxasoon bu bare bu ñu ne bërét yàlla xam na ne période boobu noonu moy lol non mais buñ né nee ma maa koy dab ci ci ginaaw saako ya ba jël bi da am ci ginaaw saako ya mais bobu lol mo waron am ci mom da koy am jeexna na man tamit damay nekkan na ci lenen tamit quoi non la demee. mun na japp ni don na combat bam tamit jafe-jafe yi bari won na torop ci sa côté. bari won parce que combat bi mo toll won fofu noonu man dama nekkon si lancé bi nga xamni combat bobu suma ko daanon damay wat fenen moom mom fu mu yam man dama ko don dépasser ndax bobu man man bamay may mom dama dama dellusiwaat retourné ba ñëw ko pour moom. ndax boobu noonu xoola distance bu ma ko daanee ak moom peut-être boobu distance bu ma daanee ak distance bu mu bërewaatee garga xoola distance boobu nu mu guddee boobu man maa ngi woon si lancé bu garaaw a garaaw ndax dama dugg si kalaaf génn fa jël pay wàññeeku ñu joxaat ma ay seexu jën ma daan ko jël garga daan ko maa ngi koy nuyu tamit au passage xam nga si lañ ñëw taxaw boobu dama nar a année balance ma ne naa ko jël coow wax ji bëri woon na trop en plus tamit wax dëgg yàlla Aziz moo ko tëggoon fayoon na ma lu ma jaral ma bëri ji ko lu mu met amna am naa si pertement mooy defar bi mais am naa si ndax fayoon nañ ma lu ma jaral ma bëre quoi tax bëri wuñ rek tamit di bëri noonu bëgg nañ gañe bëgg nañ def lépp ñun bu ñuy bu ñuy bu ñu amee combat noonu la def daaw amna fi combat yaa xam ni promoteur woo na ma ba may woo boobu dafa ma fekk ma nekk si hôpital parce que dafa tombé na combat Gris Bordeaux ak el kii waaw Elton ak kii ma jóge si combat yi ñëw si bu feebar ma tooy si tooy bu met jour bañ may woo maa ngi hôpital. pour ñu jox ma combat bi Aziz nee na ma kaay lu ñu la fay yow li nga laaj ñoom lu ci manqué man ma remplir la loolu ba nga jël ba mu mat nga dem bëre ji mais yabu ma supporter wala nit ñi yenn yab yi nga xam ne nekk si kaw la la hôpital di jël ay combat comprendre nga ñun géejawaay daf ñoo ñor ñun nekk ay doomu géejawaay gëm suñu bopp ñeme lu ñuy def demuñu rek futteeku dem di saraxe suñu bopp man saraxewu ma sama bopp combat bu mu koy jël peut-être bu mu koy jël dafa fekk man nekk si état bu baax a baax a baax mais ñëw tax ñu fekk la si kaw lal hôpital nga naan la kaay jël combat nga dem di ko bëre loolu xalaatuma ko defal kenn te loolu Aziz toll woon na taxaw noonu pour def si man ay moyens pour ma bëre combat boobu des fois nag nit ñi wax xam nga man aw ma aw ma xaar kenn aw ma muy géej waaye ba mu daj nag des fois damay nekk sama yëfu bopp ndax nag wax dëgg yàlla la may joxe suñu kër ak la may def ak la may lii kenn joxeelu ma ko man maa koy defal sama bopp kon suma ma gisee lu mu war a defe tamit des fois dama koy bàyyi dem dama koy dem defe ji ndax tollootuma âge bi nga xam ne tamit mooy loolu âge yaa ngi jeg moo ngi daw mm, njaboot moo ngi commencé am kon affaire yu bari da nga koy commencé jéem a xool nooy dafay organiser sa aduna ndax aduna yamul si lamb kase waaw mu doon la am solo doon na combat am tane mun nga ni jafe-jafe yu bëri woon nañ torom nga jógee foofu boobu léegi nga am ay difficulté pour relancer waat lan mooy problème bi. waaw daw damay jël lépp rek ko si loxo yàlla ndax nit du doon nit du may boppam bu doon nit mooy may boppam rek kenn du sonn yàlla lii la namoon ci man 2012 ba 2017 2019 bi ñu nekk ni ñaari combat laa ci bëre waaye teewul maa ngi koy fekkee di ko nettali di ko mën a wax am na ñu su nekkoon yàlla jël na leen tey kon dama siy sant yàlla bu baax rek ndax nit moom feeg yaa ngi xëy di yew di ànd sa bakkan rek yàlla sam papa dafa mën naa ma mbër même bëre sax ñu daan ko taxul mu ñàkk ñaan même bu buñ ko daané buñu bissé bisee ba àgg na sant yalla bu baax xam am ñaan ndax làmb ñëpp xam nañ dafa metti ndax lepp la ñuy sëf mbër tey buñ ko sëfoon benen nit budul mbeur du du du du sax dox bay xalaat dem ay estat kon sant yalla la rek wa man du mo né li la wala la xamna né lu wara am ci man la destin la par force la sant na ci yalla bu ba téwul tamit bayiwuma ben yoon ma ngi tok nek ci lenen tamit quoi ndax bu doon ci lamb tamit kase kase kase la yaaka dina metti ci man torop yalla bol na mag ay nit yu bax tay ku su melni ay pamam ku su melni ni jëy promoteur yalla mo def ba ñuy tay dusak du sax lamb waaw mun naa ne sama combat boy ñaa boobu sax ñoo andon toj nañ ci paravirus brise yep kon boobu xalaatagul sax teug ay lamb mais nak yalla mo ngi def ñoo ngi and mu nekk ko bax si man pam mama ay Baara jai, ay nit ñu bax di ma ci code tamit xam nga sonn dal daal benn yoon wax dëgg yàlla sonn ma benn yoon maa ngi sant bu baax a baax a sama famille tamit seetaanu ñu ma benn yoon tamit quoi parce que mënoon na rek tamit tok bëri woo sax ñu ñu mais non non ñoom ñoo may gën a encouragé may nekk si leneen ak leneen ak leneen tey làmb bu amee combat dem bëri su amul combat tamit maa ngi si leneen waaw. Ah, mbër bu loolu weesoo aussi bi nga jugee sa diggante ak Baama Ndione ba léegi gis nañu bëree woo toogaay bu yàgg bi lan moo waral. waaw loolu laay wax quoi. ba mu ba mu jógee si Baye Mandione après joxaat na combat yi ma doon joxaat yenn yi du sama combat. dama leen dépassé si làmb bañu ma bëree kenn mais yenn mbër yi dama ne ñii bu lu fekkee euh, làmb dafa am mérite ak li nga xam ne da ngay bëri ñoom ndax xaalis du dëgg bu dee yow mbër mi xaalis moo tax ngeen di bëri na lay fay lu ko jar nga moom bu dee mbër yi nga xam ne kii mérite la moo tax seen combat yi ñaar dafa ñor xomm kooku luñ la fay da ngay dem bëri ji. non la demé na dama nan combat bi ak bi man mom la bëgg mais combat yi ak yi yéen ko bëgg ta ngeen may fay yi nak mom bo leen ñëwé ak num man lo loolu njuboo bo leen ñëw ñu juboo ko mais ñoom dañuy xol leen arranger yow tamen nga xol la arranger non non la demé quoi mais ba combat bu mujj bu mu la doon wax nonu du mu wax mbeur mi ndax instant ni amna combat mais bobu azin Ndiaye wax deug yalla taxawon na wax ma loolu nonu loolu mom mom wo téléphone deuxièmement bi mu ñëw na ba ci man ñu taxaw ñun ñaar mu wax ma kon mais da fekkoon ma febar tay wax deug yalla tamit dawma pour beure ji pour di lek xaalis bi non tak dem teddi nelaw non non dafuma lolou xaalis bi lu mu neex neex neex man dama jël combat def ci sax sama xaalis waxuma la khas bi ñu fa dama jël combat jël xaalis defaat ko ci kon man ndam bo ma soxal suma beure nak daan dama ne yalla la suma daano tamit dama jëlal lepp teg ko ci loxo yalla deug la comme ni nga ko nga amone ay souci sanitaire donc di defaru léegi defaru nga ñëwaat nga paré nga pour beure ñan nga jàpp ñoo see potentiel adversaire <laughs> xam bo ne defaru bo taxawé ni buñ ba paré nga nan diw diw ak diw diw dañ nan ki <laughs> yow kan du wax wax koy mbeur nan diw waw man dal ma ngi fi ni tok ma ngi ñew fi nek fi sama boy and ak ñom di len taxaw sen combat yi suma yalla joxe mu ma jël suma joxul ma xamni ne lii la yàlla man ma xari lenen ak mbeur bu mu ta doon nak mais comme lu ma la waxon sank rek euh xam xamni mbeur yaa xamni mérite moo ñu ñun ñaar dina bëre ak ñoom mbër yi nga xam ne xaas moo boole xaas lañ may fay ma bëre ak ñoom ñu dégg récemment ku ci ni Forza mu def benn sorti ni gars yi ñemewuñ ko jël ñu bëri dañ koy moytu est ce yow pare nga pour jël ko ah, Forza dama xoxal yeneen vidéo yi Forza ñaata at laaj ko ko laaj ko la champion la te dafa def ay preuve am tamit la de wax dëgg tamit mbër yu bari duñ ko nangu jël ndax dafa def dafa def preuve am te ay combat am day metti loolu moom moo mais man ñaata yoon ko taxaw laaj ko dëkk na jour ñëw fekk ma taxaw man ak pakala ñu taxaw ne fekk ñu doon dox suñu combat ay jamono mu ñëw taxaw dëkkaat ñu suñu ñaar boo fekk na bëri naa pakala ba pare après wàññeeku waan naa mais mooy loolu quoi promoteurs yi daal boo waxee daaw nii am na promoteurs yu ñëwoon ba si yàgg dem ne ñu non non Forza ñu ngi koy doxal diw pour man sax période boobu combat boobu dina taxaw ndax sori woon nañ ci trop trop trop trop loolu saison début saison bii la yàggul dara mais finalement déggaatuma si dara man daal maa ngi nii parewu ma pour benn mbër wala ñaar ma wala ñetti mbër waaw mbër bu ma si yàlla booleel rek après mooy loolu. mbër bu ñu la proposé rek mu arrangé la pare nga pour jël ko. waaw mbër bu loolu weesoo aussi bu ñu xoolee li nga xamante ne mooy école bi amoon na ay jamono mun nañu résultat yi nekkoon na résultat yi am te ñu mucc ayib la ba ñëpp dañu doon coow école bi mais année yu ñu mujj mun nañ résultat yi tax koo demee noonu coow li bëri ci torop lan nga jàpp ne moo waral loolu. waa gis nga àdduna toujours moo demee noonu quoi yaa de woo yaa de ba école bi demoon na yoroon benn niveau bi nga xam ne macha allah kenn mënu ko woon téye mais yàlla moo bindee noonu gis nga loo gis mu dem ba nekk au top ba nekk ba ci kaw dootul dépassé foofu day mën wàccaat ak lay mën a def tey exemple mu lay jox mooy mbër bu demee mbër ba nekk ba roi des arènes est-ce que mun na dépassé loolu munul dépassé roi day dem mujj jëlaat mbër yi nekkaat si suuf di xaar ku mu si daan kooku nekkaat roi wala loolu géej tey bu feesee booy xam ne fees na day amoor bi xam day delluwaat fer école bi tamit noon la demee yéegoon na ba àgg benn wàccaat na day jugaat si kàttanu yàlla noonu la demee waaw ñu gis aussi ren saison bi nga xamante ni mooy saison ren bi euh, école bi def benn entame de saison bu bu bu am solo ñu gis xale yi ñu ngi bëree di am ay combat di am ay ndam yu am solo tamit euh, loolu yëpp ma ci li ma ci tiir rek mooy ñi nga xamante ne ñoo leen tàggat ku ci mel ni mbës ak Lamine ñu ngi def liggéey bu am solo dan nga gisee ñoom liggéey bi ñuy def. toujours loolu laa leen di wax dama ne xale yi buñ bëggee avancé nañ déggal mbës déggal Lamine déggal ndax ñoom ñoo fi nekk ñoom la fi yàlla teg loo gis am na ñu koy jiite dama ne école bu doon sama genre gi kase ak yeneen yi école bi tas na bu yàgg ñoom ñoo fi nekkoon téye booy di ànd ak ñoom guddeeg bëccëg di futteeku di nekk ak ñoom mu neex mu naqari parce que man maa fi nekkoon ay daaw daaw jéeg doon ànd ak ñoom waaye dem na man tamit comme lu ma waxoon sànq rek am na yaa xam ne tamit des fois dalay war c'est obligé nga dem defi ji ko mais ñoom ñoo bàyyi seen lépp mu neex mu naqari ñu boole si lu leen neex lu leen naqari te lu ne leen yi dégg nag mais di leen wax ñu muñ rek xam ne lu yonente bi amul yàlla yàlla si boobam amu ko Alaaji Maali amu ko Sëñ Tuba amu ko Maam Limaamu amu ko min def du ko am parce que ñoom ñëpp ñëpp kan nangulul ñëpp ànduñu woon nanguloo leen nangul leen nangul leen yàlla ñëpp gëmuñu ko yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñëpp gëmuñu ko maam borom Touba Seydi Aji Maali Maam Limaamu Laay ñëpp nanguluñu leen kon tamit beneen nit bu fi nekk tamit ne dama koy am par force da ngay nax sa bopp noonu noonu la demee quoi ñoom ñu gën a góorgóorlu gën a teg loxo xale yi ñun ñii tamit nga xam ne ñoo fi nekkoon yàlla def ñu nekk magu école bi ah heure bu ñu amee jot ñëw di fi jaar si di fi nemmee ko xale yi tamit may leen loxo may leen doole ndax ku fi raw rek dañ la jàppale ba nga raw ñu jàppale tamit xale yi parce que Père Ba loolu lañu daan wax nee na xale yi di déggal mag ñi mag ñi may loxo xale yi. waaw mbër ñu gis aussi benn complicité bu am seen diggante diggante Lamine ak ki nga xamante ne mooy mbës euh, ba ki nga xamante ni Youssou bi mu doon bëree sax jour boobu Lamine dafa xaw a tawat mbës daal ko fay représenté aussi daal ñëw assisté ko ni mu waree euh, muy waneen rek am na benn déggoo bu am seen biir benn respect bu am te mi ngi daw seen diggante nan nga gisee ñoom ñaar complicité boobu waaw loolu yar la rek yar mooy joxe loolu ak joxe cër ak teggin moom lañ leen yaree ñun fii nii école bi lu muy rëy rëy rëy lu coow li di bare bare bare bare bare amul mbër bu siy sigi di xool moroom ma bu ñuy bëre nag mun nañ ñafee ñàkkante ko ba mu jeex tàkk mais ñu paree ñun ñëpp ay doomu nday lañ ndax ñun dañ fi nekkoon amoon nañ sax ay tour laa lay wax mbër daan bëri am fii combat ñun ñi ñëpp kenn ku ne natt téeméer jox ko mbër mi am combat kon yéene boobu moo fi des ba léegi ñun noonu lañ daan def noonu la boy di def noonu noonu la ñuy jàppalantee daal suñ doole ak tout weccit bu ñu am kenn ku si ne jàpp si nga jox ko. mun nañ jàpp daal lépp si solidarité la lalu. lépp solidarité la lépp lépp solidarité ak nangu partagé. te lépp tamit Père Balla moo ko fi def moom moo fi jiwoon loolu affaire bi sax fi màgg fi ñoom mu seen nekkoon si ak mag yi fi nekkoon fii si école bi doon si jàpp ba ñooñu yàlla tey jii ku si mel ne Père Issa président ñoom Moussa Ndiaye ak yeneen ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñeneen mais xëy na léegi tamit ah yàlla lu mu namm rek loolu mooy am quoi noonu noonu la école bi demee.